ngeen jëf ndaje mi ñu xëy woon démb ci parrainage bi ci ministère intérieur le journal yëpp xëy parrainé seen bopp ñoom ñëpp ñoo ngi ñuy nittali ndaje mag na mu demee le quotidien xëy ko tuddee juróom-ñett fukki candidat ak juróom-ñaar déclaré wu nañu démb ba jël seen fiche de parrainage vox populi nañu juróom-ñett fukki candidat ak lu teg ta dara xewagul libération ne ko limub candidat yi bëgg a sóobu ci wotey présidentielle 2019 yi ci bésub démb bu njëkk ndax bu weesoo juróom-ñett fukki candidature ak juróom yi seen fiche parrainage am na yeneen fukki candidature ak juróom yoo xam ne seeni borom yëglu nañu démb lépp lépp boo ko boolee mi ngi toll ci téeméeri candidature source a nañu ndekam dañu fi indi yi ngir ne dañu bëgg a wàññi limu candidat yu bari ba noppi ñu am lépp juróom-ñetti fukki candidat kon bu fi parrainage bi amul woon nu mu war a demee Aminata Touré mel ni ku ci tontu ci xët mu njëkku direct info ndax ma nga ñu fay xamal ne parrainage bi bu amul woon ci réew mi bu ba yegg ca wote ye danañu toog yàlla boo xam ne heure bu ñu xëyee dañuy dem di wote ji ndax i candidat yu bari boobaa dinañu gis ci wote yi juróom ak benn ci gàttal Mimi Touré ne solos parrainage bi fu ko waaye natt rek weesu na ko l'observateur nañu waaye ñi fara ci opposition bi ñoom gisuñu loolu loi bi jëm ci wàllu parrainage tey la ñu ko gën a ba moo waral tey ji danañu dem ca conseil constitutionnel jox ko ab recours ngir sàkku ci moom mu annule arrêté bi ministre intérieur génnee bu ñu noppee ci loolu talaata ñeenti fan ci septembre ñu def ab toogaanu ñaxtu ci buntu ministère intérieur ngir xamal ministre intérieur Aly ko doyooñu ci organiser élection waa ñu yéenee jëlaat bu mu delloo ca booy booy ba dinañu giit a ngaas ak Macky Sall lu ñu mën bokk ci élection yi ni mu ko soobee borom parti démocratique Sénégal di Abdoulaye ndaje mi ñu bëgg amal fii ci Ndakaaru ci weeru septembre waa parti démocratique Sénégal ànduñu ci yéenekaay bi nañu Abdoulaye Wade ak i gaayam nee nañu ndaje mi kenn du ko fi defee buñ ko fi amalee ñoom duñu ci bokk te danañu dem ba fa ñu koy defee taxaw ci bunt ba yoree seeni pancarte di manifester ba noppi dinañu démissionner ci kuréel gii di international libéral libéral le quotidien nañu waa parti démocratique sénégal li ñu bëgg ci réunion bu international libéral bi moo di ñu renvoyé ko dàq ko ba beneen leneen ci feneen président Macky ci laas journal bi xëy ay kàddu yu mu yëkkati moom jiitu mi Macky keroog ba muy daje ak waa Macky 2012 leen sondage yi ñu def wax na ne téeméeri nit yoo jël ci réew mi juróom fukk yi ak ñeent maanaam yi man la jox bopp Macky ne waa Macky loolee neex na lool waaye dina ci dellu si am na ay nit yu fi faatu 2012 ñoom Macky Sall ñoom Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng ak ñi ñu àndaloon ñu leen doon mën-mënee di leen utiliser ba ñu rey leen yéenekaay bi dañu ñooñee faatu nañu ci manifestation seen bakkan rot na seenu dund des na fa te yëf yi ba léegi mujjul fenn Ibrahima Diagne mi responsable communication chargé des archives ci kuréel gii di M23 neeñu ci xët mu njëkku yéenekaay bi fukki doomi aadama ak juróom-ñaar loru nañu ci manifestation yi ñeenti nit faatu nañu ci te ci ñooñee ñëpp juróomi nit rek lañu ci indemnisé ña ca des ñëpp kenn toppatoowu leen madame Gassam Thiam mi jiite collectif de victimes ne waa Source A président de la république mësuta nangoo recevoir collectif gi bañ na ko ba demande audience yi ñu ko bind amul benn bu mu ci tontu Source A nañu ils sont morts pour rien dee nañu ci Mali foro télévision Futur Média TFM ak rajo Futur Média RFM dëbbati nañu gaañi ubbi leen observateur beneen sondage bu cabinet bii di Stade Info def moo wane ne ne fii ci Dakar lu ëpp ci askan wi TFM la ñuy seetaan RFM la ñuy déglu classement ba ak ni mu tëddee ci sondage l'observateur nañu moo di ci télé yi TFM moo jiitu ak 68 pour cent Sen TV topp ci ak 37 virgule 4 pour cent rajo RFM jiitu ci rajo yi ak 35 virgule 4 pour cent Zik FM topp ci ak 26 virgule 7 pour cent